Stay back. Stay. Stay. loolu ma ci guubi gar ko mooy Fallu naan ko doogoog doogar te yow foo laax zalika fallu laay ni malawoo mooy borom nit am na ku ñëw ci moom ne ko galas sëriñ Fallu baayu mbee man de dama bëgg sëriñ Fallu lu ma ci góobe gar ko mooy Fallu naan ko doogo ci moom mu ne ci yow sëriñ Fallou kenn du mën sa boor mu tële booram sama nee na maay sëriñ Touba bu ngeen ma gisee ba nëpp maa gis ku ne gis ci doomu Serigne Touba la Serigne Touba ci man la tàmbalee ci man la yem jal bu Serigne Touba jal ma ko fekkee mën naa ko jalaat ba mu col-coli bu ma neexee ma maat lekk ba mel ne dara mus feene te kenn kuy dund tey ne ci réew mi yëg nga ni Serigne Abdou Karim ay Serigne Fallou bu wér daj na jamono képp Serigne Abdou Karim ci jubbanti gone yi jàngal gone soo du joxe ak gàllaaj da koy jege rek mu lay xool nga koy xool ba defaru te kenn ku ne mu ngi lay jàngal nooy toppi say waajur ak nooy jaamoo yàlla kenn ku ne mu ngi lay jàngal nooy liggéey le Serigne Touba kenn ku ne mi ngi lay jàngal set ak jikko ju sell ak di wax lu baax nee na kenn ku si ne kàddu gu génn sa gémmiñ naka fexe ba nopp bu mu dugg bégloo borom kooku koy Serigne Abdou Karim waaw ba mu ñu koy wax ca golfu dafa ne ma nax laa gi mu danaa leen nettali dara ci njaago bi fi ñëw bu yàggul indil la ab kaamil te njaagal njaago bi kat ay murit la àndal naan leen toog leen sama ginnaaw ba sëñ bi woote loolu pas-pas la waxuma François François moom miin nañ ko waaye keneen laay wax man bu ñu lay jàpp kaamil bi nga téye ko daal koy ubbi yem ci wa huzzi ilayki bi gis in naxlati tasaaxan alayki rutaban janiya te kat seen seen ab yonent la ubbi dajeeg moom mu ci wax yàlla naan ko kat xiif nga waaye gësamal tàndarma gii te xéewlu ci seetlukat bi daal yokk na ma xoolal lii ma xool njaago bi man xool xam ne mbirum njaago bi lañuy wax te tàndarma lay wax de sëñ Abdou Karim mu ne bu xeet ñaari ñaari ñaari sekk tàndarma na ko maa la ko indaaleel ballaahi wallaahi wa taala man jàppkat laa du ma ragal nag lu ma gis naa ko wax fii la def ñun ñu bëgg ko ci saak ndax nañ ni kii xam na li xew ñu yóbbu ko ci ba ci bayal ñun kal lañ mënoon mooy yóbbu ko ci ba ci bayal rek bu set ñu ko fii la loolu dong la ci mën amuñu néeg buñ ko jox amuñ ceeb buñ ko jox ñu daal di wàcc ay xaymaam samp lim njëkk a def mooy oto bu toll nii moo moo moo wàcc glace ba mu baari glace ba mu fees del mu samp xayma yi defar lépp daal di woo ba ñëw mu nañu daara ji lan la ñuy njëloo bis bu set daañu déglu leen de ma ne ko ñeenti mbana mu ne ma danaa leen ko jox añ ak reer njëlal sëñ boobu denc leen ko ba ma dem liñ ko indil ci dal bi mu jox ñu sëñ bi di doxeek ñun noonu ma ne ko ma ñu gone yi waj waj waj waj waj bi xaw maa diis ndax gi ginnaaw sëriñ bi ne lu war a ñëw